sunu doge rek tay tay tay bo doge tay tay tay lañ ko tay lañ um premier jour tay rek so doge tay tay tay bo julli timis ba pare julli ñaari rakka nafi ben rakka bi jàngal fatiha ba mu jeex nga jàng inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahri tanazzalu lmalaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbi min kulli amrin salaamun hiya hatta man al fajri ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar raaka bu njëkk raaka ñaar it loolu ngay def ñaar ko ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar yéene li nga bëgg yépp yàlla dina la ko defal dégg nga li li nga bëgg yëpp maa ba ngeen ne ma mokkalu ma inaan sa naaw may la julli ñaari raaka rakka bu ne nga def faatiha ñaar fukki qul huwallaahu ahad ak juróom ñaar boo taayee sëlmal jàng faatiha jàng ñaar fukki qul ak juróom ñaar yéene sa aaju yépp def ko addi yonent kenn du ko def te yàlla suturaalu la ci diine suturaalu la ci adduna suturaalu sa diggante moom da am ngërëmu yàlla te yàlla ko am ngërëmu say buntu tijjeeku loolu ngeen def seen premier jouru koor weeru koor nag weeru xëccoo la weeru giiroo la weeru euh, góorgóorlu ci jaamu yàlla dem nañ ba wax ne boo wooree weeru koor yow tey tey mooy premier jour nga woor ba jant bi soo nga ndogu boo jullee timis bala ngaa julli gee nga julli fa ñaari rakka benn bi nga def faatiha ñaar fukki inna anzalnaahu ak juróom ñaar Euh, gis nga am na ñoo xam ne dañ naa inna anzalnaahu fii laylatul fii laylatu du laylatu fii laylatil qadri la fii laylati ñu bari nag dañ seen làmmiñ dafa dafa dafa làggi ci inna anzalnaahu fii laylatul qadri noonu fii laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ما دون إنا أنزلناه في ليلة ديدت في ليلة القدر لا même boo dégloo sax am na imaam yu bëri bu ñuy julli sax seen làmmiñ ñu ko tàmm rek dañ naan inaa anzalnaahu fii laylatul xadri bis bu njëkk bi nga woor nag bu jant bi soyee ba nga dog ba pare jullil ñaar rakka rakka bu njëkk bi nga jàng faatiha inna anzalnaahu vingt-sept fois rakka ñaareel bi nga ñëwaat jàngaat benn faatiha vingt-sept inna anzalnaahu muy ñaar soo taayaa sëlmal nga jàngaat faatiha vingt inna anzalnaahu ñaan li nga bëgg yépp ci jaamu yàllaak jege yàllaak xéewal ak yërmandeeg tout loo bëgg rek soo paree nga def ko àddee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa soo ko defee wax nañ ne mm, euh, dajale nga yiwu àdduna ak bu àllaaxira wax nañu ne itam danga am ngërëmu yàlla wax nañu ne ak ubbeekaay la ci sa dund surtout yéen ñi nga xam ne euh, ñun ñi nga xam ne xam nga ay jaaykatara di lañ bëgg nañ bunt yu ubbeeku bu ñu jàngee loolu yàlla mën nañu suturaal bu ñu jullee loolu suñu bunt ubbeeku bi ci des mooy bu ñu umee tey par exemple bu jant bi soyee guddi gi jàngal faatiya jafal ñaar ràkk ràkka bu ne faatiya benn xul huwallaahu ahad jeex na nga taaye sëlmal bu subaa nga defaat faatiya ñaari xul huwallaahu ahad maanaam bis bu jot da ngay dolli benn xul huwallaahu ahad bis bu jot bëccëg bi yoor yoor boori on dix heures nga def ñaar rakka rakka bu njëkk bi nga def fatiha inna anzalnaahu benn rakka ñaari fatiha inna anzalnaahu nga taaye sëlmal bis bu ne del dolli benn inna anzalnaahu bëccëg bi guddi ngay dolli benn xul walaawaat ba ba weeru koor wi jeex donc loolu yëpp dafay dolli aw yiw ci nit ki nga xam ne mooy jaam parce que weeru koor nag weeru xëccoo la weeru giiroo la weeru euh, góorgóorlu ci jaamu yàlla